Mais il veut pas que ce soit toi, Ousmane Sonko, qui soit à sa place. Il veut tout faire pour que ce soit pas toi, Ousmane Sonko. Qui voit là où ils t'ont amené là Qui voit ce qu'ils vont faire sur toi là-bas est là-bas. Mais il va faire comme s'il n'est pas au courant. Il va dire non, mais j'étais même pas au pays quand a arrêté l'opposant euh, Ousmane Sonko. Pourtant, c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui est à la base de ton arrestation.

Ousmane Sonko a compris que si jamais Macky Sall dit qu'il n'est pas candidat, ça ne veut pas dire qu'il a laissé tomber. Il va passer par tous les moyens pour empêcher Ousmane Sonko d'accéder au pouvoir. Donc, que vous puissiez parler. Voilà, pour qu'on puisse échanger ensemble. Vous allez donner votre avis. Moi, c'est mon avis. Voilà. C'est mon avis. Bonjour, Adama. Bonjour, Adama. Bonjour, comment vous allez Oui, je vais bien. Il y a une autre personne oui, qui est je, je, salue tout le monde qui sont en train de. Mm -hmm. Je te félicite en tant que patriote africain. Euh, je pense que euh, ce que vous êtes, vous êtes en train de faire, c'est ce que tous les Africains devraient se mobiliser pour sensibiliser l'Afrique, pour que l'Afrique sens. On ne peut pas accepter d'être toujours en esclavage moderne. Jusqu'à quand Il faut qu'il y ait une révolution. Donc on a besoin des gens de, des gens de grands comme vous. Et je félicite très Moi je suis euh, je voulais intervenir un peu, sur la situation au Sénégal, sur la mhm. situation du, du président. Ce qui s'est passé, pas seulement euh, Sonko, ça fait longtemps. Sonko, vous-même, si vous regardez dans son, dans son image, sur son histoire, Vous verrez qu'il accepte tout le monde de prendre des photos avec lui. Ça, ça le, ça Pour rappel que lorsqu'on l'a arrêté à Kungel pour revenir à Dakar, vous avez vu que les policiers même, on on, ils dans leur voiture, dans le mm Et oui. n'ont pas le droit de le faire. Mais ils l'ont fait, sciemment. Mais ce qui s'est passé, la dame là, il a garé une voiture mobilisée qu'ils ont occupé des matériels d'espionnage de haute qualité. qui arrêtent même les conversations dans sa, maison. C'était ah pas la question du voiture. Voilà. Je pas le portable qu'il avait, c'est pour cela, même l'intervention pour l'arrêter, c'était quoi Parce que dans ce portable, il des secrets, beaucoup de secrets. Mm-hmm. Donc, dans ces secrets, eux, ils ne pas que ces secrets soient soit sur, le, euh, sur, sur, sur, lui, reste sur lui. C'est pour cela qu'ils ont intervenu. C'est intervenu automatiquement pour pouvoir euh, prendre le portable. Si c'était Sonko seulement, dans son, euh, lui seulement, ça, ça n'aurait pas eu de problème. Mais cette dame était là à chaque fois, même les voisins qui habitaient là-bas, ils l'ont vu, faire des turbulents, faire des marches, faire des demi-tours. tout ça. Mais là, c'était abusé. Parce qu'il a filmé lorsqu'il allait au, au mosquée, à la mosquée. Il a filmé. Au retour, au lieu de le filmer pour un, un peu et de l'arrêter, non. Il a accompagné jusqu'aux portes, jusqu'à la porte de sa maison. D'accord. Et là, c'était là son intervention. Mais c'était abusé. D'accord. C'était abusé. Mais histoire de vol de portable. Sonko, lorsqu'ils eux-mêmes, ils l'ont pris, son portable, ses ordinateurs, ils l'ont pris tout. Oui, oui. Ses valises, son argent. mais oui, il a, il a signifié ça. Voilà. Il dit qu'ils tout ça. Mais, ses... mais tout ça, oui. Mais lorsque, lorsque les patriotes sont mobilisés, Sonko, il a eu tout. Des matériels, des portables. Même aujourd'hui, même, même moi qui vous parle, s'il y a une saisie de portable, n'importe quel portable, je peux l'accepter et l'envoyer. Mais ce n'est pas une question de portable. Le procureur même l'a dit. L'affaire de portable, c'est juste un élément de déclencheur. C'était juste élément de déclencheur. Mais sont quand même, ils savaient bel et bien que ce jour, ah, ils préparaient ce jour. Mais le problème est que, dans un premier temps, on croyait qu'on voulait régler le cas de condamnation. Parce que juste depuis qu'ils l'ont arrêté, sa condamnation est, annulée. Si le régime de Macky Sall voulait vraiment régler ce problème, il aurait passé dans ce, situation pour régler définitivement ce problème. Parce que s'ils l'ont relâché en ce moment, ce problème aurait été réglé définitivement. Il On va à, l'élection. Celui qui gagner, il gagnera. Mais lorsque j'ai eu la population n'avaient pas réagi automatiquement d'une réagi, réagir n'ont pas réagi, tout le monde n'a pas réagi. Donc ils ont profité de cette situation pour amener d'autres. Mais tous ces programmes, ils l'ont programmé depuis fort longtemps. Mais non, ils n'avaient pas la possibilité de le prouver, de le montrer au peuple. Maintenant, c'est oui, comme le peuple. Eh, Adama. Adams, pardon. mon souci, T'as dit, oui. pourquoi j'ai dit que je vais lui donner des conseils en direct comme ça mm -hmm. Parce oui. que, quoi qu'on dise, en vain, quand Macky Sall luttait pour son troisième mandat, il se battait, il créait tous les problèmes à, Macky, à Ousmane Sonko, je ne parle pas d'avant, je parle de maintenant. Je dis maintenant, là, Ousmane Sonko, toi, toi, le frère Adams, Ousmane oui. Sonko aujourd'hui là, qu'est-ce que tu penses de lui Tu penses, tu penses pas que il est, c'est lui qui sera le président du Sénégal Bien sûr, tout le monde le pense. C'est pour cela qu'il a des problèmes. on prend tes trucs, on, arrête, on veut t'arrêter, tout ça là, ça c'est. Macky qu'il a perdu. Le seul piège qu'il est en train de tendre aujourd'hui, c'est de faire tomber Ousmane actuellement. Oui. Oui. Ça, c'est la vérité. Euh, là, aussi, là aussi, je te comprends. Je vous, très bien. Parce que en réalité, euh, aujourd'hui, à nos jours, Mais le problème qui se joue, c'est c'est le problème que il veut pas que Sonko part à, participe à l'élection. Oui, tout le monde le sait. Qui veut tout pas le monde que le sait. Sonko participe à l'élection. Mais qu'est-ce que Sonko fait voilà. Maintenant, l'enjeu l'enjeu qui est là, qui est là en réalité. L'enjeu qui est là en réalité. Tu sais que ce qui ce qui est en train de se passer au Sénégal, c'est vraiment dangereux. à l'état actuel, même le gouvernement, le régime de Macky Sall a des problèmes à contrôler tout. Ses généraux, il a des de, de problèmes de contrôler même ses ministres. Parce qu'il y a des ministres qui ont même, il y a des aussi, il y a commandants aussi. Mais ils ont Ce peur, peur parce que... Voilà, ils ont peur. à la CPI, ça j'avais déjà dit ça dans une vidéo, ils ont mm-hmm. de à la CPI. les, oui. y compris les généraux, y compris les ministres. Ça se trouve à la CPI. Donc ils savent que leur nom se trouve là-bas et que même si et que et puis tomber. Donc ils sont en train de chercher à pouvoir empêcher Ousmane Sonko d'arriver là où il doit arriver, mais eux-mêmes ils sont en train de se chercher aussi parce qu'ils savent que leur nom est déjà arrivé là Comment faire pour changer la vision de, de la CPI sur leur personne Donc chacun est en train de Voici ce qu'ils sont en train de faire. Oui, mais ce qui, ce qui a mené même, même ce, qui, ce qui se passe actuellement, c'est très dangereux. Même à, à l'état actuel, même s'il y a des gens qui commentaient dans les, dans les internet, pour, dans, sur Internet pour dire que, dans les réseaux sociaux pour dire que l'armée doit prendre le pouvoir. Mais à l'état actuel, où on est, on, là où on, continue comme ça, ce serait très dangereux. ce serait très dangereux. Parce que pourquoi À l'état actuel, ça pourrait déclencher une guerre civile que, que personne n'aurait souhaité au Sénégal. Non. Parce que Adam, Adam. à l'état actuel, regardez, Adams. la gendarmerie. Adams. Euh, oui. Je vais dire quelque chose. Tout à l'heure, quand j'ai introduit, quand j'ai planté le décor en parlant, j'ai dit que oui. risque de précipiter sa chute. a dit, ouais. élection là, en février. Mais Macky Sall ouais. risque de pousser que avant même qu'on arrive en, décembre là, lui il Parce que actuellement, les pays africains, je dit, j'ai dit tout à l'heure qu'il est parti à Saint-Pétersbourg, arrivé là-bas, dit que lui va répondre à Ibrahim Traoré. Mais en répondant à Ibrahim Traoré, il est en de pousser lui-même ses hommes parce que Le Niger vient de tomber. Oui. Et la CDAO est en train de lutter pour pouvoir, d'après eux, envoyer des hommes en armes au Niger pour remettre la démocratie d'après eux. Mais si Macky oui. Sall ne fait pas attention dans ce comportement-là, c'est pour ça que je, je, donne mes conseils. Plus, je donne plus conseil à Macky Sall. Moi, je donne mes conseils à Ousmane Sonko. J'ai dit, c'est le futur président. C'est normal, c'est qui est normal. Tous les actes, les pas qu'il va poser, il n'a qu'à faire attention parce que Macky Sall veut forcément le, le pousser à l'erreur. Parce que lui, il sait que c'est fini pour lui. Et comme il veut pas que Ousmane Sonko soit là, il, est en train de tout faire pour chercher le pousser à l'erreur. faut pas y va. D'accord. Donc, euh, je Merci beaucoup. Merci. Je m'arrête là salue tout le monde, vraiment. Merci. Attends, je vais faire monter les autres. Vous que je vais faire monter là, coupez vos micros. Dès que vous arrivez, vous coupez vos micros. Je vous fais monter un à un, mais coupez vos micros. Oui, vas-y, continue. Je salue tous les, tous les membres africains et tous ceux qui nous regardent vraiment. Je suis fier de ce que tu fais, Monsieur Didier. Merci. Vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Parce que c'est bien aussi d'avoir euh, une euh, chaîne comme ça ou une live comme ça pour aussi inspirer ce qu'on vit et ce, qu'on, ce qui nous fait mal aussi. Ce que tu as conseillé à Ousmane Sonko, tu as parfaitement raison. Oui, il devait faire très attention. Même si on lui tend ça sur sa tête, il, il devait passer. Parce qu'il a souffert jusqu'à mmh. maintenant. Donc, ce n'est pas maintenant aussi de réagir. Oui, C'est un grand monsieur. Il approche du... C'est un grand monsieur. Et il est né noble. Je le connais très bien. On habite à Ziguinchor. Sa mère est une bonne mère. exemplaire. Moi, c'est sa mère qui m'a formé à Enda Chermon, l'ONG américaine. Enda Chermon, j'étais petit. D'accord. je partais à l'école et je travaillais parce que j'ai mes frères. Tu sais, certaines situations, il faut que toi, l'aîné de la famille, c'est toi qui vas contrôler. Si tu sais que ton père n'arrive plus à soutenir la famille. Moi, je me suis battue dans ma vie or que j'avais même pas 20 ans. C'est sa mère qui m'a donné le courage. J'étais petite et j'étais la plus petite de Enda Tchermo, de Ziguinchou. Sa mère, c'est une doux mère. Tu, tu, tu, tu l'entends pas. Quand elle parle tout doucement. Son père aussi, je le connais très bien. Très bien. Il est né fonction. Son papa et mon papa, c'était des amis. Tu sais, avant les fonctionnaires, ils faisaient un clan avec leurs enfants et tout. Mmh. Il est zéro faute. Il est zéro faute. Donc, ce que je demande à tous les Africains, qu'on leur donne un coup de main qu'on se bat. À l'heure actuelle, Dakar, ça ne va pas du tout. On dort pas bien. On ne reste pas bien. On va descendre sur les rues pour défendre ce qui nous soit droit. On va tous défendre. Vraiment, on a un plaisir.